ñëpp ci jàmm sant yàlla barakallahu macha allah man de maa ngi tudd Cheikh Aboubacar Ba Atijani ah góor waay ah Seydina ñoo bokk Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif de ah, waaw waaw ñu def saxal te jëriñ ñu amiin diyaane ak ci baatin allah waaw ñun de dañoo am ay xabaar yu ñu yu ñu dégg waaw ñu wax ñu ne nag xabaar bi ci yéen la bàyyi ko waaw waaw am na de sax de waaw yow yow naka nga tudd man alaaji Mouhamadou Bachirou waaw ki xam ne mooy sama naay Mouhamadou la xam ne bu ma teewut ci waxtu yi mooy mu wax nga dëgg yaa jiite ci waa ji kooku nag dañoo ànd ci jàkk ci mi ñëw romb suma bunt ko dikk ne ma sëñ bi mm-hmm. ma gis ko ko gis ko ak ñeneen ñu toppoon sama constat yi nañ mm-hmm. uh. gis waaye ko la ñu ñu door a annoncé bi ñu déggee sama waaw waaye waaye daal yow gis nga ko ci sa jëmmi bopp waaw waaw gis naa jaaran kay fa tabarakallah walla gis naa fa de peut aji dama sekk mu nekk ci département Nioro nekk commune sa sa dëkk moo moo tudd naka moo tudd kër alaaji Iliman Seck kër Iliman Seck kër alaaji Iliman Seck mooy seen dëkk waaw waaw mooy seen dëkk kër alaaji Iliman Seck waaw kay moom foofu waaw kay ci commune bu bu Daaru Salaam waaw kay commune Daaru Salaam département waaw kay foofu la kilifa kilifa yi euh, daaru salaam yëg nañu ko kilifa daaru salaam yi ki nga xam ne mooy xalifa suñ dee bokk ndey baay Basiru alaaji Basiru ndaw yaaram waaw mooy magi suma yaay ñu bokk ndey baay ah macha allah waaw seen bu soxnaa ji alaaji Basiru ndaw mariama soxnaa ji moom ji ñoo di suñu sëriñ ñooy suñu wasila waaw dëgg a taw maa ngi dem ci rakku sëñ bi El Hadj Habib jox ko naa ñu wax ma mu wax ko xalifa bi. waaw kay boo am kay mm-hmm. waaw ñoom ñoo suñu sëriñ am nga la ñoom ndaw mooy sëriñ sama baay. dëgg la kay radiyallahu anhu. joxoon mooy joxoon sama mu kadam. dëgg la waaw. ala eh, ñu ndaw xam nga Amadou Saint moo ko jox. dëgg la Amadou Fouti. dëgg la Amadou Saint Mouhamadou Lambe Mouhamadou Lambe. Eh, ñu wax Lambe waaw. Eh, waaw kooku Cheikh Omar jox ko Cheikh a Tijaani la calala bi <laughs> ah, wax dëgg la mën naa sax allah bu dee di ngay déglu rajo Alfayda dinaa koy déglu yee rajo bu am solo la waxtaanu waxtaanu waxtaanu na Tijaan woowu ñu fay man mi ma koy def Ah, man man Cheikh na Tidiane dama saf lool man man maay Aboubacar Ba Tidiane wax ci koor gi yëpp. par par wa Ba. waaw man mii maay def waxtaan bi. tarkala tarkala ah waay waay. waaw eh, amiin yaa rabbi man waxtaan bi Cheikh dama ko bëgg bëgg ba nga xam ne maam. dëgg la eh, sax eh, ak defoon am parti boo xam ne bii sax ci Cheikh na Tidiane laa ko daan def. est ce que bu ñu yi bëgg ma waxaat ko sax. ah ci fi mu juddoo fi mu jaar fi mu jàngee fi mu départ fi mu jàttee Momadou Kordo yu la dëgg la ak fi mu départ foofu ba dem Madina mu na ci Abdou Karim Samane. dëgg la waaw ak la mu ko jox ak dund man mii man mii bind naa ci téere bind fi taarifi bil xatmi tijaani yow daal fasante naa ak yow kóllëre waaw da tey maa ngi ñaan yàlla danaa ñëw ba ba ziar la allahu taala waaw danaa jox mbokk moomu léegi mu jox la ko dëkk bi nga ne kër ilimaan kër alaaji ilimaan waaw réseau bi mooy xaw a dem waaw baax na kër alaaji ilimaan Seck moo mooy sa wajur ah kay baax na jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërë xaaral mo sama numéro baa ngi nii mu mu jox la ko mbokk mi na la ko téye waaw jox ko numéro bi 77 77 77 87 87 03 03 waaw jërëjëf jërëjëf Seck kontaan naa sama xol oh, oh, oh, sama xol sedd na kuy Wow, wow. anu waaw waaw jërëjëf ati تمام نعم <laughs>